J'ai perdu des hommes de valeur. J'ai perdu... Un, un, Le Sénégal a perdu, des hommes de valeur. te euh, yàlla dafa dogal ni jullit dafa war di tiit léeg-léeg doomu aadama dafa war c'est très très important. je t'ai jamais vu comme ça je t'ai jamais vu euh, aussi émotif je t'ai jamais vu emporté Je t'ai jamais vu avoir peur parce que j'ai connu un Wally Seck guerrier depuis tout petit, qui m'a fréquenté depuis tout petit. Mais aujourd'hui, je vois quelqu'un qui tremble, je vois quelqu'un qui, qui n'arrive pas à se retenir. xam nga dañu wax allahuma jaal fi xalbi nuura wa fi lisaani ومن بصري نورا ومن خوفي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا واجعل لي في نفسي نورا واعزمني نورا اللهم اغفر ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفاحش ما زار منها وما بطن اللهم بارك لنا في أبصارنا وقلوبنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين بنعمتك مسلمين خابين لها واتم علينا يا رب العالمين c'est pas du hasard ñu bind ko du du ñu bind ko yàlla maa ngi lay ñaan suma loxo bi nga ma defal lu ma ci def yàlla naa ànd ak leer yàlla maa ngi lay ñaan gémmiñ gi ma defal su ma waxee yàlla na ànd leer yàlla na ànd ak fachaxa barke suma ñaanee yàlla maa ngi lay ñaan suma bët yi buñ doon xool ñi ñi gën a yées duñ ma ci génne man kon xam nga man baaxuma jaam bi gën a xeebu bi gën a yées tàmbale naa ko ci suma bopp tuuti xeebuñu kenn xeebuñu kenn ñaan nañu wax ñu ñaan xeebu xeebuñu ñaanu kenn football laa bëggoon def suñ borom weddi ma jël suma yoonu baay yàlla natoo ma musique waaye bu weesoo seen bi may nekk su ma wàccee ana Ibrahima je suis Ibrahima Wally Seck bi ci scène yem su ma génnee je suis Ibrahima